ami la lay njëkk wax ko mom ben instant dafa nek nit ki nga xamanteni euh mu naani sene dafa am ay fans fi Sénégal parce que way kat la mom je pense que ni amna yu bari yo xamanteni bu ko na lay def war na ko mën a ngir ay fansam quoi vraiment. si ami la lay njëkkee quoi parce que mom way kat lu quoi n'est-ce pas mais man lima gis dafa waron yam ci place wayam. téewuñ ko tee nii su ma dañ koy teg ay daan quoi pour beneen yoonatee keneen bañ ko def quoi. soxna yooyu ñoom lu ñu def juum nañ trop trop trop trop trop ndax euh, gis naa ñoo xam ne ñii ànduñoo Macky Sall sax waaye soxna yooyu lu ñu def daf leen a métti. te xam ni président de la république kenn du ko insulté quoi waaw loolu laa am ci lu may wax nag muy man muy keneen ak keneen ak keneen waaw président de la république moo fi nekk moom la yàlla tànn def ko njiitu réew mi. te réew mi. dañu war a fàttaliku ni réew teranga la réew jàmm la réew mi li ñu daan wax démb ak bërki démb rek la ñuy wax ba tey lu toll ni président loolu dafa foor foor gi mu foor ëpp na dayoo ndax euh, président du fowukaay ndax euh, nit ki lépp li nga xam ni doo ko wax sa waajur waroo ko wax waajuru jàmbur. wax ci yenn yi ci président loolu dafa jaaduwul quoi boo doon xool. sa papa wala keneen doo ko def. parce que du n'importe kii daal ba tax na lu waaye juglu ni rek wax ko lu la neex bu ñu ni démocratie rek tax na nit ku nekk wax euh, lu la neex nga wax tamit non loolu du yoon quoi mais nag Macky Sall aussi war na mën a am xama rek benn grandeur xama bañ a topp nit yi daal parce que tamit bu dee day def à chaque fois nit ku wax rek nga ne ko nga kii ko moom bu ne bu yàggee moom mooy loolu daal. kaaw ami collègue kaaw benn ba bu ñuy wax ci whatsapp bi lañ doon wax. nit ñoo ko génnee dugal ko ci réseaux sociaux yi man je pense bien que ni bu ñu demee ba jàppale ñoom it ki nga xamante ni moo génnee affaire yi war nañ ko mën a rechercher ba jàpp ko parce que tamit nga bokk ci groupe WhatsApp di wax nga xëy suba ñu jël la dugal la ci kii te yow yow li nga doon wax yow ak ñu ngi ko bokkal ci yaa ngi sa groupe WhatsApp la nga xëy suba dégg sa bopp ci kii bi loolu nit ki ko génnee war nañ ko war a mën a xool bu baax seet ko parce que du yoon tamit quoi